صل على محمد
الحمد لله الحمد لله العلي العظيم الذي أنزل إلينا القرآن الكريم روحا تحيا به النفوس عن المؤمنين ونورا تستضيء به قلوب العارفين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله خير من صحب القرآن ورتله وعمل به وعلمه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله وقراءة كتابه وهو أنيس العابدين ورفيق القانتين من قرأه ارتقى ومن عمل به كان من أهل التقى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla subhanahu wa taala mu kayo bi moom yàlla mu màgg bi moom yàlla mi ñu wàcceel alquran karim muy dundal lii di suñuy ruux di leeral it suñuy xol ñu ngi seede ni amul kenn ku yoo jaam ku dul moom yàlla subhanahu wa taala te ñeelul ñeelul ñu koy bokkaale ak kenn ñuy seede ni suñu sang Muhammad alayhi salaatu wasalaam jaamam la te ndawam la mooy ki gën képp koo xamante ne yaa ngi takkoog alquran karim muy sa wettal nga di ko jàngit wala nga koy jëfe wala nga koy jàngal mooy ki la gën mu alayhi salaatu wasalaam yàlla yàlla jullu te selmal ci moom dafayal ñu ko moom ak i saxaabaam ak njabootam ga ak képp koo xamante ni topp nga yoonam ba ba bés pénc di taxaw mbokk yi ñuy dénk suñu bopp di leen dénk ragal yàlla subhanahu wa taala ak jàng ji di téere bi di alquranul karim ndax mooy téere bi nga xamante ni ci la jullit bi di dellu ngir dëppal xolam ci lépp loo xamante ni juddoo na ci moom ay naqar wala tiis moom alquranul karim de képp koo xamante ni yaa ngi koy jàng yàlla daf lay yëkkati képp koo xamante ni it yaa ngi koy jëfe kooku di nga bokk ci ñi nga xamante ni dañuy am ragal yàlla yàlla mu téere bii di alquranul karim sikk amul ni jub la ñeen ñi nga xamante ni ñooy almuttaquun mooy ñu ragal yàlla mbokk yi alquranul karim yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu ngi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa kadalika awxayna ilayka ruuxan min amrina ma kunta tadri ma alkitab wala aliman walakin jacalnaahu nuuran nahdi bihi man nashaau min ibadina yàlla mun yonente bi sallallahu alayhi wa sallam alquran bii de ba nga xamul woon dara jàngoo dara mooy li nga xamante ni moom la ñu wàccee ci yow mooy li leen différencier ak ñi nga xamante ni yàlla wàccewu ci ñoom lii di wax yu mu ni mooy téere bi nga xamante ni wax jooju di alquran leer la boo xamante ni yàlla ci lay gindi ñi nga xamante ni ñoom mooy ñoo jaaxal innahu alquranul karim mbokk yi téere boobu mooy alquranul karim muy hablullahi almatin mooy buumu yàlla bi nga xamante ni moom la yoor jaamal ñi ngir ñu ci mooyaanu mooyaanu ngir bañ di tàbb ci lenn yoo xamante ni ak réer la téere bii di alquranul karim mooy siraatul mustaqim mooy yoonam bi ni caw jëm ci moom subhanahu wa taala te ñu muy jël di leen dugal ci bi aljanna yàlla ci yàlla boole mooy téere bi nga xamante ni mbokk yi mooy waxu yàlla day melal ci melokaani yàlla ni yàlla day wax te fa yàlla waxee ak jaamam ni mooy téere bii di alquran karim ay waxam na ci nekk te ana jan wax moo gën a jotale te gën a matale waxu borom bi subhanahu wa taala bokk téere bii di alquranul karim moom la yàlla wàccee yabal ko ki gën ci malaaka yi kii cheikhu malaaka yi muy jibril alayhi salaam mu wàcceeku ci dënn muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax yàlla wu ni nazala bihi ruuxu nazala bihi ruuxu al amin ala qalbika li takuna min al mundarin man yàlla man maa wàccee téere bii di alquranul karim ci sa dënn ngir nga bokk ci ñi nga xamante ni ñuy ñiy woote ñuy waaraat ñuy kuppe téere bi nag yàlla man ko wàccee ci langu arab moo tax mun bi lisaanin arabiyin mubin mbokk yi téere bii di alquran karim man adaama tilawatahu raqa qalbi képp koo xamante ni yaa ngi koy sàlloo di ko jàng yow de xol bu nooy ngay am xol bu dal ngay am doo am lenn ñu fitna ci sa biir xol wa man lazima tadabburuhu zaada fahmu képp koo xamante ni yaa ngi koy jàng te di ko settantal kooku de mi ngi mooy kiy dégg li nga xamante ne mooy diineem te mooy kiy gën a xam fi nga xamante ne fa la war a jaar ngir jaamu borom wa man ittabaa hadiyahu qawiya imaani képp koo xamante ni topp nga alquran ji te la ci yàlla di digle ak la muy tere kooku de lii dëkk ak ragal yàlla da koy yëkkati ndax déggu leen waxu borom bi subhanahu wa taala fi mu waxee ni innama almuminina alladina ida dukira allah wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadatuhum imana yàlla moo ni lii mbir te mbir mooy ñii di way gëm ñoom dañoo ñi nga xamante ne saa yu bu ñu déggee ñu leen di fàttali ci téere yàlla bi seen xol yi dal dal di yëngu alquran bi day yëngal seen xol ca la ca nekk ci gëm yàlla wa ida tuliyat alayhim ayatuhum zaadatuhum imana saay boo leen waxee nag la ci yàlla di wax ba ñu xam ko loolu bokk na ci li yëkkatiwaat seen iman ñuy xam dëgg-dëgg la mooy day alquranul karim mbokk yi ci weer bii ñu nekk nag mooy weer bi nga xamante ne ci la yàlla wàcce alquranul karim mu ni chahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayinatin min alhuda walfurqan yàlla mu ne ci weer bii di weeru koor ci la wàcce alquranul karim muy ak njub ngir nit ñi ñeel nit ñëpp wa bayyinatin min al huda ci la yàlla di teqale di leeral lépp loo xamante ni mooy li jàmm bi ñu war a jaamoo borom subhanahu wa taala mbokk yi bokk na ci li nga xamante ni mooy li barkeel weer ci boppam wàcc bi ci alquranul karim wàcc yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi nekk mu ni fi kulli laylatin min ramadan jibril da doon wàcc di jàngandoo ak moom alquranul karim yonente bi salaa sallam nee na weeru koor su mu santeru guddi bu jot jibril day wàcc di jàngandoo ak moom alquranul karim at bi nga xamante ne nag ci la yonente bi salaa sallam di génn àdduna jibril ñëw na ci ñaari yoon di jàngandoo ak moom alquranul karim naka noonu mbokk yi la saxaaba bu ñuy wax xabbaab ibnul arat radiallahu anhu mu ni taqarrab ila allah bima stataata fa innaka lan tataqarrab ilayhi bi cheyin ahabu ilayhi min kalaami mu ni kenn ku nekk war naa góorgóorlu ngir di jege ji boroomam subhaanahu wa taala waaye moom nee na yoon bi nga xamante ni mooy yoon bi gën a gaaw ngir nga jege sa boroom mooy nga jàng téere bii di alquranul karim mbokk yi ci weer wi jullit lu mu saggan saggan saggan war naa fexe ba dagg ci ay waxtoom temps boo xam ne lay ci lay toog di ci jàng alquran karim bu ko mënulee jàng mu koy déglu muy toog di ko déglu wala muy dem sax ci fan ko tafsirale mu toog mu koy tafsiral alquran karim ngir muy xam dëgg-dëgg waxu yàlla subhanahu wa taala ci alquran yi te léegi lay amatul fenn ci jamono toll ndax mooy yëpp am na ngir boo bëggee jàng di nga jàng boo bëggee déglu di nga déglu kon lay amatul aqul ma sami'tum wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulilahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala alzalimin والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ginnaaw bi ñu santaate yàlla subhanahu wa taala di julli di salmal ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam suñu taxawaay ñaareel ba tey ci lii di alquranul karim ak weeru koor yonente bi salallahu alayhi wa sallam ngi wax ni man qaraa xarfan min kitaabillah fa lahu bihi xasanatu walxasanatu bi ashri amtaliha mu ne képp koo xamante ne de jàng nga benn xaraf ci alquranu karim mu ni foofu de am na ko fiiw ci benn xaraf mu ni wal xasanatu nag bi ashri amsaaliha benn xaraf boo ci jàng yàlla dala koy fulal defal la ko fukki tuyaaba loolu ci beneen weer sax lay doon pour weeru koor ndax weeru koor yàlla buy fay lu wàññi lam lay jox ba tey alayhi salaatu wasalaam mu ñuy wax ci lii di weeru koor ak alquran mu ni alsiyaam wal quran yashfaaani lil abdi yawma alqiyama fa yaqulu alsiyaam ay rabbi manatuhu altaam walshahawati binnahar fashaffa'ni fi ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngi nekk ci xarit muy doomu aadama bi de yi nga xamante ne dafa taxoo alquran di ko jàng di ko settantal di ci góorgóorlu nee na yowmal qiyaamati lii di koor ak alquran dañuy taxaw nga di ko rabb si mu ni koor moo taxaw ni yow yàlla sa jaam bii de man maa ko tere woon a lekk ak naan ak bépp luy dox koor yi nga dagaloon ci moom sax ci bu ci weeru koor man mii de maa ko xañoon maa tax daaw ko def kon nag yow yàlla maa ngi lay sàkku ci yow ma ram sa jaam yi mu ni noonu la alquran karim bi taxawee ni yow yàlla sa jaam yi man maay ki nga xamante ni ci guddi yi da daan jub di ma jàng ma koy xañ sax ay nelawam ci guddi ngir naafale yi daan def ngir jaamu la kon yow yàlla maa ngi lay tinu nga ramm sa jaam bi ci loolu mu daan def ngir man ci alquran karim mbokk yi kenn ku ñu nag la ngay def wala la nga dalay def ba nga di si xamoo ndax yàlla nangu na ko wala nangu ko ëllëg yowmal qiyaamati amul kenn koo xamante ni di nga taxaw lu dul di nga tiit ndax taxawaay boo xamante ni bu rafetlu la te taxawaay ba te xew-xew ya fay am yëpp taxawaay la bu rafetlu nga lakkat ko alquranul karim fii ci àdduna ak xeetu jaamu yàlla yi nga xamante ni yàlla digle na ko rawatina weeru koor fekk la fi fekk la fi nga war ci jaamu yàlla góorgóorlu ci ba ëllëg mu bokk ñi nga xamante ne tiitaay wee day ñëw taxaw ngir ràmm la ci kanam borom subhanahu wa taala te keroog kenn ku ci nekk ci ñoom ñaar muy alquran ak koor bu ñu daanelee borom bi subhanahu wa taala ngir nangul la ñu wax daan nangul naa leen ko kon rabu leen mbokk yi suñuy taxawaay ci ay naafila ci ay ci guddi wala toog di ngay toog di jàng alquran wala ngay déglu tafsir wala lépp loo xam ne lu lamboo ulumul quran la nañ koy jëndee jataay yi nga xamante ni fukki weer ak benn dund nga ko di daw rek di daw rek alquran dañ ñuy taxaw di la ko jiite ngay taxaw di naaf la mu yàgg lool guddi lool taxawaay métti lool nañ ko jëndee taxawaay yowmal xiyaama bee di ñu xaar toog gi ngay toog jël sa temps di ci déglu alquran wala ñu la ciy wax alquran lan la ci yàlla wax muy dugg sa biir xol di yëkkati sa iman jataay yooyu nañ ko jëndee jataay yi nga xamante ne taxawaayu alquran taxawaay yowmal qiyaama ci ëllëg bu ñu yàlla subhanahu wa taala di àtte mbokk yi ki nga xamante ni moom dafa jàngul sax alquranu karim mu dégg kàddu yi wala yàlla tudd xolam ba lii di pas-pasam ci yëg yàlla yeewu mu ni man de bu démb doon tey dinaa jàng alquran da nga yor njaboot goo xamante ñu ngi toll ci jàng alquran jëlal njaboot bu yóbbu leen di jàng ci alquran loolu mooy liy firndeel sa rëcc bi nga xam te rëcc ko sa ñàkk jàng te la ca yàlla bi la ca alayhi salatu wasalaam dige yowm alqiyamati mu ni ëllëg yowm alqiyamati ki jëloon doomam wommat ak doomam ni mu saxee ci xol nga yóbbu ko te ba muy am juróom-ñaari at ngir mu dem jàng ji téere borom bi subhanahu wa taala boobu sa daggatu xol moom nga xub ci yóbbu ko xeexal sa bakkan xeexal seytaan ngir xale bi jàng yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xale boobu mokkale alquranul karim ëllëg boo ñëwee yow wayjur bi ci kanamu borom bi subhanahu wa taala yàlla day jël wayjur bu góor bi bu jigéen bi dat décorer leen ay mbalaan moo xamante ni wurus lañ leen awee wurus ci kanamu pénc boo xam ne kenn du manqué nag ñu ni doomu diw ni diw mii di lim sa tur muy wayjur bu góor wayjur bu jigéen bi ñu leen di décorer ci kanamu mboolem subhanahu wa taala mbokk yi noonu li ñuy jëlee doomam ji tamit ñu ni ndegam wayjur bu góor bi ak bu jigéen bi la ñuy defal bi waa moom xale bi mokkal moom lan lañ ko war a defal yoon saa saa ne danaa ko jàngal nga yéeg la nga mokkaloon di jàng te kër aljana ya noonu nga yéegee di yéeg ba fa nga yamoon ci alquranul karim koo xam ne daa xam alquranul karim ne fan lay toog kooku moom alayhi salaatu wasalaam ñu bokk benn jotaat bi toog ci biir alquran ci biir aljana bokki yàlla bi yàlla déggloo alquranul karim la ci yàlla di wax te yàlla xiir ñu tamit ci di jëfe li nga xam ne mooy digalu borom bi subhanahu wa taala ci alquran ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين قوموا الى الصلاه يرحمكم الله